am ndax dañoo am beneen nationalité bu dul nationalité sénégalaise dañoo bëgg a xam ndax ay malien lañ ay gambien lañ ñu dem te dem fi ñu dëkk parce que depuis 1960 ba jonni yàlla yi tey Fuuta mosu gis boppam ñun ay doomi réew ñoom ay ndawi réew 14 régions wu Sénégal 13 yëpp da koo développé ba mu des Fuuta mosu la développé ñu fàtte ko ci lépp ñu taxaw tey jii di xeex ak ak yelleefu Sénégal rawatina Fouta ñu fi wax et pourtant ne démb ba mu neexee ñoom di leen campagnal ba ñu jot lu ñu waxoon dañoo ñu dem ba ci biir gis naa lañ ak ñoom ak lañ ñu waxoon amuñu luñ ñu lu ñu naa ñoom Linguère Morow Mor tax ñu ne juute ba cagal juute Morto xanaa ñun ñu ci nekkee ñu ne jeetuwaay ñu naan Fouta kii di occupé lañ la joxoon te sa occupation baaxul wan nañ la ko te nangu nañ suñu permis xoolal rek tey jii ñu ngi ci vingt-et-unième siècle demee tey ba ay nit di jur si ay saret ñu ne déetooy am dëkk yoo xamante ne amuñu sa forage dañuy gas suuf xaar ndox mi génn pour ñu koy naan loolu tey mu nga fuuta bee ñu ne déetawaay ñoo xamante ne ay yoon yoo xam ne enclavement total ñun tey jii ci waaye tey jii ñaanuñu yàlla nawet daal ñëw ndax ñun bay dundee la xam waaye il suffit mu taw on est coupé du monde dem Mauritanie moo gën a yomb ñëw fii tey ñun suñuy doomi réew suñuy ndawi réew tey jii ñii Fuuta ku xëy yaa ngi condamné boo condamné ba am 10 000 francs oto ñëw Ndakaaru fii laaj nañu lu seen métier siiraas bëccëg jaay picc jaay picc dekk gardiennage loo am yónnee say mbokk xale yu am jàmbaar xale boo gis muy def loolu ku ko laaj kan ne ko fan ci Fuuta mooy sa dëkk ñu ne Géejawaay 54 milliards ñu génne ko fii waaye ñun xanaa Fuuta amuñu jeunesse jeunesse ñu jox ñëpp ci 54 milliards ñu toppal waa Matam ñu bàyyi leen ñuy wax ñu ñuy wax leneen phosphate bi Ndendory par année ñaata milliards lay génnee 158 milliards ana xaalis boobu 50 camions droit de stationnement ana xaalis boobu gisuñu si dara. ñu nangu suñuy kër bu ñu waxee ñu andi ñu ay gendarme ba ci suñu kër génnee nañu ci biir di leen door gendarme dem bay bëgg a violer nit fen mu jëwul fen bu xale yi génnee di wax gendarme ñëw door ñu ne dafa doy min nattee jabde wonde ɓinngel mooroowo ko mo finaano finii mo faamaano faali min ngummiima min ndariima hamno kaɓoo ko jaaji fuurankoɓe